li ma war a dund li ma war a happiness waaw li ma war a happiness booy pulo booy booy pulo booy ñoxor yi ñoom saa man na ni saa bu ñu ñëwee rek dañuy woor rek di ma sonal man man wóori naa ba pare man sunu li kenn wee eh, ñoom saa bu nu wooree dina ma ah dina ma sonal te man di ma war a happiness li ma war a dund li ma war a def foofu mu nekk ci pop ba daal di bu ñëwoo. man mhm. xam naa dama war a dund. yiji mo haala wala kasira ndeka mi diganno yo jaay mo lamba aman haw mali lalla sonali jaago a sonali eh assalamu aleykum ndikumi salam eh na a def ñi si jàmm ay eh, am jàmm sinti yàlla na ngeen defoo coono sinti yàlla barikalla a yow ya ngi ñëw fii tey simi kër eh xanaa tey koor gi di fi mitti yow ngi ñëw simi kër yow pulo noonu la a yow yaa xam aaya bi ni mu demee tey dama yónni ah ba pare tey dëkk bi amul xaalis amul dara di ngeen ni mën a ñàkk jom da nga ñàkk na ngeen def ak coono. sant yàlla ñu ngi fii. yaa ngi ci jàmm yow nii ngay toogee. simi simiri du kër la fii. simiri du kër mais ne du ma toog nu ma nekkee ma def toog nu ne neexee. yow nii ngay ràcce. waaw simiri du kër du mel maak moom du mel maak moom. léegi boo ko moomee taa nga toogee nii. simiri du kër la ma tey. li mu eh, neex li mu neex la def nit ñi dara dara dara. xanaa da nga jaaxle ti moo tax gi seen koor gi dafa métti moo tax nga ñëw si man. ah eh, métti wu de. dafa moo tax nga ñëw si man. tey dane na sax. tey tane na. Ah. boo jeexalee te di ñëw fii. ah du loolu sax tey damaa jaaroon fii ma ne xaaral ma woo Juma Njaago bi. yow ak yow numu. yow ak ñokkiri baabu ni ñu ni ñàkk jom. eh voilà kooku ku tudd ay turam wax nga dégg nga. waa nga waaree nga dem yooyu moo gën. di ngay waat yéen mi ngi naan mi ngi ñëw. man mi ngi naan eh, mi ngi ñëw eh fi noonu. eh mi ngi ñëw de mi ngi ñëw. ah waaw boo ma yàggee boo ñëw boo ma wekkul fii rek nga xam ne mooy loolu.

di muy dem këram di mu koy wër tey di mu koy wëri ji di muy wëri pulo kii moom mën a sàcc dégg dégg dégg dégg ani ani mu nekk ci wooru koor ñëw di fii ñëw di simi kër di sàcc si mu téléphone salaamaaleykum. ay lan la ah lan moo xew fii. dama xamal la dama bëgg ngeen dimbali ma da nga génn si ma téléphone léegi léegi. xam nga daa ko def lenn wala tey di nga am problème yi. xam nga doo fekk ma war ma heure bii nga ma sonal ak wànde yaa ngi dégg. yow seet na nga waroo maa tiim nii. di nga seet ci. eh xam nga lan la yow kan moo nekk na sàcc. yow di nga sàcc te bu ma foon doole affaire ñàkk a fay doole bu. yow yow si mi kër ma bàyyi la foofu nga sàcc si mi téléphone. te xam nga nag xaalis bu jaar ko du jekk. ku fi seeraam. booy bu la portable bi ma jaay baaxul jom. kii bi kàlla am nga ñëw fii heure bii. kàlla